tey benn fan ci weeru mais mooy bés bi ñu jagleel ak ak yelleefu liggéeykat yi addu bés bi dafa tombe ak jafe-jafe ci wàllum koom ci réew yi néew doole geeru Ukraine waa Senelec syndicat yi booloo avec l'union des cœurs aujourd'hui ñëw euh, organiser cette cérémonie du premier mai ensemble avec seen directeur général avec ñun seen ministère vraiment kontaan ci trop Eh, suñu ministre sax mu ngi fi woon waaye dañ ko woo ci liggéey. ci loolu ay coppite yu am solo tàmbali na ci wàllum taxawaay gu yees ca Senelec holding public buñ nar a dendale ak production transport distribution vente ak gaz. dama leen ne revendication bu ngeen yëkkati na ngeen teg solution yi à côté su ko defee suñu dajee au lieu ñuy discuter ci revendication yi dañuy discuter ci ban solution la ñuy jël pour. nga xam ne entreprise bi dina ko attan mais aussi pour nga xam ne solution boobu aussi dina satisfaire travailleurs yi loolu moo tax changement boobu ñuy wax changement de paradigme moo ñu may ñu mun a am climat social apaisé temu ren gi convergence syndicale des travailleurs de Sénélec gile mooy enjeu et défi de la réforme institutionnelle de Sénélec suite à la promulgation de la loi numéro 2021 31 du 9 juillet 2021 ci portant code ci wàllum courant gi ndax li ñuy wax ne euh, séentu asamaan jarul buuxante ñun ñëpp ñoo ñoo bokk lu ñu bëgg li ñu bëgg mooy fexe liggéeykatu Sénélec am koom di liggéey di wàcc di am aafiya te loolu nag pour ñu mën ko am booloo mooy doole moo tax tey jii ñun ñëpp syndicat yi nekk Senelec yëpp ànd nekk benn ci bis bi ensuite yamale wuñ ko foofu mais dañ ne ñi nga xam ne ñoo ñoo ñun ak ñoom ñoo bokk secteur bi muy énergie te ñoom ñun liggéey ci gaz pétrole ak ay station d'essence ak ay SAR mooy les hydrocarbures ñu woo leen pour ñu xool naka la ñu def pour ànd ñun ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk secteur pour que ñu ànd nekk benn ndax fa ñu jëm dañoo soxla booloo. booloo boobu nag moo ñuy permettre tey jii ñun ñu fexe ba Sénégal am souveraineté énergétique moo ñuy permettre ñu fexe ba ni ñu def Sonatel def ko euh, SONES jaay ko ñun fe ñu fexe ba Sénélec nekk patrimoine national. syndicat CST li ko tax a jug mooy sàmm ak aar moomeelu réew mi ci courant. waaye itam mu ngi ñaax liggéeykat yi gëstu ci nu ñu gën a booloowee ba mën a am sax ab confédération nationale des syndicats ku jëm ci wàllum courant gi.